salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi image bii ñuy partagé fan yépp bon man vidéo bi ma ko jotee léegi ça fait plus de deux ans maa ngi gis ne ñu naan kii Serigne Touba la même gis nga kii li mu bind Allahu Akbar vraie image de Cheikh Ahmed Bamba alors que c'est pas vrai kii du Serigne Touba kii ñuy wàññi nii du Serigne Touba képp ku leen ko envoyé jërul ngeen koy partagé parce que lii ay image bu Bamba mos xam la woon et donc euh, du loo xamante ne bii ah, je suis désolé mais loolu am njëriñ loo xam nit ñi war nañ ko partager ak bi ci wax lo xamanteni ne bii ci deug image yi du Serigne Touba encore une fois du Serigne Touba jërul ngeen koy partager bu ñu leen ko partager ku ku ku leen ko yónnee ne leen Serigne Touba la effacé leen ko wala bu leen neexee ngeen xol ko mais jërul ngeen koy séddale parce que lii du dëgg waaw lolu la ne il faut moy leral ko parce que man tamit dañ ma ci sonnal fan yépp ñu ma koy envoyé. ku nekk di envoyé ay image Serigne Touba image Serigne Touba vidéo Serigne Touba alors que kii du Serigne Touba waaw mu leer seen bopp ni bindee nii ne Serigne Touba la ku jot vidéo bi lii ma ciy wax nii ngeen partagé ko xam ne kii du Serigne ku leen Serigne Touba la du dëgg